bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi ala sayyidina Muhammad sallam jërëjëf borom Tuubaa barke borom Tuubaa asalaamaaleykum waa àdduna yëpp asalaamaaleykum waa Sénégal waaye asalaamaaleykum waa Dakar asalaamaaleykum waa Touba fii ñu nekk mooy Masaalikul Jinaan ak bu tedd bu màgg bi jumaa ju tedd ji fii nga xamante ni dañu woon sëñ Touba fii lay jaar dem ca géej ga ba muy tax naan fàttaliku ñaar guddi ndakaaram yooyu rek sunu maam xolam day jëm ci jël ngànnaay jëflanteeg nasaraan yi waaye suñu borom defal ko ni ko bés a ngi ñëw di ci am ndam lu rëy lii nag mooy ndam li tey la ñaar guddi ndakaaru yi ñuy fàttaliku fii ci Masaalikul naan ci jëwrinu euh, euh, Baye Ndiouga Dieng jiite kuréelu ñaari guddi ndakaar yi Majmahun Nurayni ñoom fi gan gu tedd jóge Touba almaxruusa ca pàkk bu tedd ba ca jumaa ju tedd ja euh, sëñ Cheikh bi nga ñëwee fii looy yëg liñ ñu doon wax sëñ ko du fi amee jaar ko fi ñaari guddi yu metti waaw yéen jàngeen ko yéen yéen borom xam-xam yi jàngeen taarix bi waaye gis nga rek di ko yàlla suñu fayee gis nga waaw Cheikh Touré lii lii kéemaan la waaw loolu looy yëg looy yëg ah yëg-yëg bi de mooy moom la mu waxal boppam rek mooy nafa li xayrillaahu fi ndakaaru kulla asan lii jërrawul makkaaru hmm. borom subhaanahu wa taala day ku mën a fay koo xam ne saa bu la dàqalee lor rek dana lay di njariñ mm-hmm. njariñ la nag daa mel ni bokk na ci pakk bu tedd bii ñu toog muy Masaalikul Jinaan mm-hmm. mu doon nga téere boo xam ne da ko bind moom sëñ bi def ko ci wàllu tasawuf mm-hmm. waaye barab bi it yàgg mel ne ni tur woowu mu yàgg na fi eh, suñ borom dogal Cheikh Mamadou Lamine moom Cheikh Amadou Fadal yàlla na suñ borom dolli nga ne ak leeram ñëw ànd ko sëñ Mbàkke yi fay ci si Muxtaar si Muntaxa yàlla na fi yàlla gën a yàggal ba lii fi Euh, xam naa la Sëñ Muntaxa waxoon rek ci jataay bi nga xam ne amoon na ko fii muy tey ba mu waxee ne tey maay waxal suuf si moom naqar woo xam ne sëñ bi amoon na ko ci buñ koy jaarale euh, keroog bi Sëñ Muntaxa wax ne suuf si am na mbégte mu raw mu ko raw moom li keroog bi Masaalikul Jinaan taxawee loolu moom mooy yëg-yëg bépp jullit waxuma sax murit waaye bépp jullit boo xam ne taxaw nga fi rek da nga ci am yëg-yëg boo xam ne da xam ne kat kaddu lislaam moom hmm. day gën a taxaw day gën a yëkkati ko bu ñëpp maasee woon di xeex ka ko samp muy borom suñu borom subhanahu wa taala jaarale ko ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. mooy ki koy sàmm mooy ki koy dëgëral mm-hmm. Sëriñ Tuubaa nag mooy seere si euh, Masaalikul Jinaan yi bokk ci seere yi nga xam ne mooy seere loolu léeg-léeg mm-hmm. bi fi am Sëriñ Babacar yaakaar naa lot nan lool ci làmm yi di ko tudd euh, nga xam ne boo fi duggee rek te yàlla doo nga jógee Touba day mel ni yaa nga biir jumaa ju jumaa ju jumaa ju tedd ja ndax euh, ni ko sëñ bi waxee ko wax ko sax ce duur yo ma lextiru min jiiraani naa jiitu min jaali bil xusraani yi samay kër man sëriñ bi ak ñi ma tànn ngir dëkk ñoom ñooñu mucc nañ ci pertu àdduna ak alaxira kon day mel ni barab bii ci ay lañ fi def ak taxaw ak taxaw dugg ci ñaanu borom nga xam ne noonu la ñaan yi ñaan suñ tuwaa mu dolli ñoo dimbale lam waxoon lil mustafa nawaytu maa yu jaddidu wa inni ak wa bii wa bii wa bii nu jaddidu sabil mm. bilaa idan aw alami mm. nga xam ne ne yes yeesu yeesu lislaam ci sëriñ bi rek la mën a jaare ñaan ñun ñi fi bàyyi njaboot gi fi bàyyi mm. ak taalibe yëpp suñ borom gën leen a gën leen a nargan ci lislaam yi nga xam ne moom rek mooy li ko taxoon a jóg mm-hmm. sëriñ moom indiwu fi lu yees mm-hmm. nga xam ne li Moustapha bàyyi woon rek mm-hmm. moom la fekk mu xaw ma nu ko waxee ci baatu olof ba mm. mu mu mu mu bay ci waar bi mu ci waar bi mm. mu ci way bay mm. mel ni suñu borom def na ko ndam lañ ci deful kenn ñaan suñu Muntaxa mu yàgg fi loolu te asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah xam naa nag loolu moo doon kàddu yi waaye nag terewul dinañ ànd ak sëñ Cheikh mu xool jumaa ji rek def benn visite incha allah